بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci tey jii nga xam ne mooy suñu juróom benneelu fan ci weeru chehru ramadan muy tombeelit sunu juróom benneelu daje ci suufu keppaaru ramadan ñu duppee ko sous l'ombre du ramadan ñuy def bés bu nekk ñu xool benn ci la nga xam ne dana wéttali jullit dana dundal xolub jullit ñu fàttali konte ko ak yéen incha allah baba weeru koor bi di jeex di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu ci barke bu tol ne bam ñu daan defal bañ daan dajeeg yéen takkusaan bu nekk ci bëccëg weeru koor te la nga xamee ñi ni moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala ñu ngi nekkoon ak yéen démb di fàttali téere bu màgg bi ñu yàlla wërsëgal muy alquranul karim waaye dañoo judd fekk ko fi yàgg koo dégg mu yomb ñu lool loolu tax na ba gëdd ba ko jullit ñi waroon a jox dëgg-dëgg boo xoolee manqué na lool loolu nag moo taxoon ñu doon fàttaliku la nga xamee ni nii nit ñu baax ñu yàlla gërëm cañ bëgg a dëkk ak ñoom ci àjjana fuñ jaaroon ñu jéem a dekkal loolu suñuy biir xol bokk na lu may fàttali rek mooy yéen ndaw ñi tayif kaamilub alxuraan foo dem ñaan ñu may la ko ñu ngi noonu yomb lool waaye Sénégal gii tolloon na ay jamono kilifa gu mag a mag a mag mooy am kaamil bi yépp su ko defee ay kàng lañ daan woo kayit jafe woon lool bu ñu amee commandé ay kayit woo ay ñu mokkal alxuraan bu ko defee rey leen nag ñu daal di fay yendu bind la nga xam ne mooy téere borom bi su ko defee dañ naan parcelle day am na ko fa am kaamil Pikine am na ko am kaamil Géejawaay am na ko am kaamil kon tey buñ demee ba kaamil léeg-léeg sax bari waay ci kër gi dalay jaaxal loolee mbokk nañu xam ne nattu la bu ñu yàlla subhanahu wa taala di nattoo ba xam naka la ñuy jëfe mbokk téere bi yàlla baa ngi nii démb ñoo ngi gënoon a sax ak yéen ca yonent bi alayhi salaam naka la meloon ak téere borom bi bokk na lañ ciy mujje rek kii di saabit ibn mutrif moom day mooy nettali ne sama bàyyi day nettali na ma ne man day gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy julli guddi waaye nee na wa bi sadrihi azizun ka azizil mirjal nee na boo nekkoon ci gannaaw néeg bi da ngay foog ak kaddir mooy bax ci biir ndax jooy yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon jooy mbokk waxoon naa la lu mel noonu Aïcha seede na ko démb ci ki nga xam ne yàlla da koo baal mboole ma ay bakkaaram lam mas a def ak lam nar a def dig ko ne àjjana mooy sa wàccuwaay su dee moo ànd ak ragal yàlla ba mel noonu moo ana man moo ana yow gàllawaay kon nañ bàyyiwaat xel ci loolu tey nag ñu bëgg a ñëw ak yéen ca la nga xam ne nii moom mooy taxawaayu sahabatul kiram naka lañ meloon ak téere borom bi subhanahu wa taala bokk sahabatul kiram ñoom day alquran alquranul karim moo nekkoon seeni portable moo nekkoon seeni télévision moo nekkoon seen temi waxtaan ay alquran yu daan dund lañu di dox ci kaw suuf seen lépp alquran la woon lan moo ko waral nañuy dellu ci kii di abu abdurrahman as-sulami radiyallahu anhu mu ne ñun de kunna ida taallamna alashra min alquran lam nataallam alashra allati bacdaha حتى نتعلم حلالها وحرامها وأمرها ونهيها نينا ñun day bañ daan jàng alquranul karim ci yonent bi gannaaw ba ci sahaaba yi daaw ñu paase fukki aaya buñ jàngee fukki aaya bala ñu caa ceg leneen dañ xool aaya yooyee lan lay daganal ñu daganal ko lan lay xaraamal ñu moytu ko lan lay digle ñu def ko lan lay tere ñu ba ko bu ko defee képp koo xamee ne nii danga daan am dara ci alquran la nga am ci alquran noonu la sa xam-xamu diini di toll loolu tax yonent bi daan insisté ci ne nañuy jiital ki ëppale alquran xataa ci ñi deetoolu jihaad ñi ëppale alquran lañ daan jiital ndax ñi daan ëppale alquran ñoo ëpp lu ñu xam ci diine ndax ñoom daaw ñu jël rek alxuraan bi di ko enregistré comme ni mu ko enregistré ci portable yi waaye nañ ko doon enregistré seen xol noonu la daan ànd ak xam la ci nekk lépp ba xoolal kii di Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu nee na man day gannaaw juróom-ñetti at laa mokkal suratul baqara ca aaya ya jëkk a wàcc way ak yi mujj wàcc yépp ci kanamam la waaye mokkal gam doon wax du mokkaluk ni suñu doom yi di taree ci daara yi déedéet mooy mokkaluk suratul baqara di deux cent quatre-vingt nangam aaya amu ca benn aaya lu dul omar xam na lu muy araamal lu muy daganal lu muy digle lu muy tere bañ demee ba doomam ja abdullah ibnu omar radiallahu anhu ba ko yàlla wërsëgalee moom it mu mokkal suratul baqara ci mokkalin boobu ma la wax baqara mooy nag nag bu jigéen dafa dem uti benn nag bu jigéen rey ko sarax ko miskin yi ngir sante ko yàlla ne moom mokkal na suratul baqara ca yow mi doon topp ca waxtaan yu jëkk ya rawatina yéen ndaw ñi xam leen ne mbokk boo demee ba yegg ay soixante dix ans soixante ans mokkal dalay jafe lool waaye yéen ndaw ñi nga xam ne yéen a ngi toll ci âge d'or ngallaawaay fexe leen mokkal suratul baqara waxoon naa leen ci njëlbéen ne yonent bi alei salaam nee na mokkal ko day barke la ci dunduk doomu aadama bi mënoon koo def defoo ko pertement la ca nee na sag nit ña saggankat ya ñoom de duñ ko man mukk loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ci misaal yooyu ñu leen jox kii nga xam ne mooy bàyyi di Omar ibnul Xattaab kii nga xam ne di doom di Abdullah ibnu Omar gis nañ taxawaay boobu ñu taxaw ca la nga xam ne mooy suratul baqara mbokk bu ñu delloo ci sahabatul kiram te na nga xam ni noonu la ñuy taxawe woon ak téere borom bi nañu déggile woon téere borom bi mbokk sàngara ku ko naanul it xam nga lan mooy sàngara mbokk sàngara boo ko yàggee naan lim lay def moo gën a garaaw ki tàmm naan kafe wala tàmm naan ataaya waaye nañu xool sahabatul kiram mi nga xam ne dañoo juddu woon di naan sàngara seeni maam di ko naan sàngara yàlla daganal ko bañ dem Madina benn bis suñu borom yàlla wàcce ci ab téeréem ya ayuha alladina amanu innama alxamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsum min amali shaytan fajtanibuhu laallakum tuflixuun ey yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm xam leen ne lii di sàngara lii di carte lii di ay xërëm yu ñuy samp lii nga xam ne mooy ak seet yooyu yépp sobe la bu jóge ci seytaan moytu leen ko ngiree ngeen doon ñu texe mbokk lii bi mu amee da ngay gis ni sahabatul kiram dañoo daal di jóg ku nekk loo amoon ci sangara da ngay gis dañ ko daal di tasaare mi ngi noonu ci mbeddi madina yi ku mel na anas di nettali noonu la ñu tasaare sàngara ya ba xatta ñoom talxa ñi ngi amoon ay gan yor seeni kaas waaye bi ñu déggee wootekat bi ne a nit ñi xam leen ne yàlla araamal na sàngara ñoom ñépp dañoo dëpp seeni kaas tuur seeni ndab radiyallahu anhum loolee bokk jurit yi bàyyi ci xel bu baax ci dogu gi ñuy dogoog alquran du na rek awaay kasatu su day sebee ka neex kasatu chatri bee ka neex laa wallahi mbokk julit la neex ci alquran mooy nga yëg ne lépp loo ci dégg muy digle def nga ko lépp loo ci dégg muy tere bàyyi nga ko donte ne yi yow julit maa ngi lay ñaan ni nga bàyyee sàngara yàlla defal nañu ñun sénégalais sénégalais pour mu naan sàngara rek mooy dafa jéggi dayoo ci mbon waaye la ëpp ci ñun bëgguñu sàngara noonu ko yàlla araamale it noonu la ko boole ak carte malheureusement carte googu tubaab bi ñëw na taaral ko ci suñu xol tudde ko ay PMI ah su ko defee ñu naan loterie nationale bénéfice bi day dem ci nation bi mbokk loolu mi ngi jóge ci ak cheytaan loolu la suñu borom wax min amali cheytaan sàngara carte la yàlla lënkale bépp façon carte moytu ko rawatina na carte gu bees gi nga xam ni dañ koy feeñal ci portable yi envoyé sms ci nangam da nga gañe nangam nangam dégg naa bu ma ci mujj gis ci tableau yi ñu koy publicité partout ci mbedd Dakar yi tudd ko gësëm chaque vingt secondes am na koy gagné su ko defee yow julit da nga cay nekk di envoyé di envoyé di envoyé boo xoolee weer bi la nga ciy dugal xamoo nu mu toll ñoom buñ ci ramassé cent millions jël vingt millions yi séddile ko quatre vingt millions yi ñu lekk ko waaye julit li ma lay dégal même bu la wóoroon ne su ma tegee gagné xaram na yow nga dugal ci loolu waxumaa nag wóoru la ngay jël sa xaalis perte ko ba pare def ko fu yàlla subhanahu wa taala gërëmul noonu nga maytoo sangara noonu nga war a moytoo lépp loo xam ne dañ koy jublu di ko yaakaar ca du yàlla muy ansaab loolu na doon bàmmeel la na doon guy la na doon bois sacré la na doon lu mën a doon waaye it ak seet mooy azlam seet googee na doon gisaane la pettaaw la géndal la horoscope la na doon lépp loo xam ne nii façon seetin la yii la suñu borom yàlla boole ne lii day ci cheytaane la jógee moytu leen ko su dee da ngeen a bëgg ñoo xam ne da ngeen di texee misaal boobu ma leen jox mooy misaalu bàyyi misaalu bàyyi la yàlla aramaloon waaye xawaloon ñu jël benn misaal wala boog misaal ci li yàlla subhanahu wa taala digle sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ne moo ana yéen julit ñi من يقرض الله قرضا حسنا فيدائفه له وله أجر كريم أنا كنت ين مم موي نيو لبل يالا واي لاغا خامن موي بار بو باخ كون دي يالا دا نكو كو فولال واجال كو باي يو تيد لولو بيم امي ام تي صحابه يا كوني واخ ابو دحداح ابو دحداح امون بن جاردin bu mag jardin ba ñu ne amoon na juróom benn téeméeri tàndarma yow mi ma yow mi bëgg a comprendre xamal ni ni pël fonke nag noonu la arab fonke woon tàndarma mu daal di dem ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ay yumi yàlla yónni yàlla daa bëgg ku ko lebal la mu ne waaw waaw te yàlla day ku ko lebal mu fay la mu ne ko sama jardin bi day lebal naa ko yàlla mooy def naa ko fi sabilillah yow yonent yàlla xoolal fu mu yeyoo nga def ko foofee loolee nee nañ ba mu ci jógee la ñëw ci soxnaam sa tuddoon ummu dax daax mi ngi noonu mi safaanoo lool ak kumba caam ñoo ne ko ummu dax daax yàlla day ne ko sama jardin bi day dafa am ku ma ko lebal mu ne ko lebal xanaa dangaa dof yow sa jardin bi kan moo ko mën a jënd waxumaa nag di ko leb mu ne ko ah lebal naa ko yàlla de mu ne ko ah waaw bu dee yàlla day lebal nga ko ko mën a fay bisub keroog ñoom ñi ngi dëkkoon ci jardin bi lañ toxal seeni néeg dem ndax xam nañ ne léegi lii masaakin yi ñoo ko moom mbokk xoolal loolu xoolal beneen aayaa ngi nii suñu borom dani lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuxibbuun wa ma tunfiqu min cheyin fa inna allaha bihi alim yàlla mu ne du ngeen yegg ci mbaax lu dul da ngeen dépensé ca la ngeen gën a bëgg ca lu ngeen dépensé man yàlla xam naa ko ca la kii di abu talhata al ansaari mi nga xam ne moo ëppoon bokkoon na ci ñi ëppoon alal ci madina mu ñëw ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko ah yow mi yàlla yónni dafa am benn aaya bu wàcc de buy wane ne bala ñoo baax la ñuy bëgg lañ koy jël sarx ko waaye maa ngi lay seedal yu mu yàlla yónni li ma yàlla wërsëgal ci al ci alal yépp sama jardin bi di botxaan moom laa ci gën a bëgg botxaan boobee yonente bi alei salaam dafa daan dem di féexlu di naan ca ndox yu neex ya soriwul woon jumaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko ah wallahi def nga lu rëy lu màgg xoolal sa mbokk jege ñaale yi nga séddale leen ko lii mbokk dañuy gis ne sahabatul kiram noonu lañ doon dunde tere ya waaye noonu lañ doon dunde ndigal ya ànd ak alquran mi ngi noonu mbokk démb rek jàngal nañu leen aaya bi suñu borom bi di tagge ab téeréem di wax ne allahu nazzala ahsana alxadis kitaban mutashabihan masani مسانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد suñu borom moo tagg ne moom moo wàcc la gën a rafet gën a neex gën a jub ci ay wax téere boo xam ne nii dafay nekk di baamuwante di nuroo julit ñi buñ ko déggee seen xol yi daal di yëngu seen der yi daal di raf mu ne lii njubug yàlla la moo cay jubal ku ko neex loolu la ñuy dégg kii di asma bintu abu bakar gis nañu ne ki nga xam ne mooy doomam ja di abdullah mi ngi noonu ibnu zubayru mas na ko laaj mi ngi noonu ana lan la sahabatul da ko doon laaj fekk dafa gis ay nit ñoo xam ne dañuy nekk di tudd yàlla di yuuxu ak jalti jalti bi mu ko ko waxee mu ne ko ah sama doom loolu day seytaane moo ko dolli waaye la nga xamee ne nii day moom mooy sahabatul kiram day la ma gisoon ñu koy def fu ñu daan jàngal quran da ngay gis ne seen bët yi di turangooñ nga gis seen yaram yi di lox loolu di lañ daan gis ci ñoom waaye daawuñu gis ci moom la nga xamee ne nii moom mooy ay yuuxu bokk ci lu mel noonu la ñu gis ku mel ne Omar ibnul Xattaab su ma saan jàng ci mbooloo ba yegg si ci aay bi suñu borom bi subhanahu wa taala di wax ba muy tagg yonent yi ca fin ba mu ne iza tutla alayhim ayatu rahman xarru sujjadan wa bukiya Omar day daal di sujud gannaaw ba jóg ne ah yàlla sujud baa ngi nii waaye nag ana jooy yi su ma nee mu jooy su mënul mu jooy jooylu bal radiyallahu anhu gis nañu ne jiite na mbooloo ma ca jàkka ja di jàng la nga xam ne nii moom mooy aaye borom bi am ñu ne mooy fii suñu borom di wax naan kazalika axzu rabbika ida axaza alqura wa hiya zalima nii day mooy sa jàpp boroom heure bu jàppee ay dëkk fekk dañoo tooñ lii di ak njàppam lu tar la ñu ne Omar aaya boobu jooy na ko ba tëdd na këram ay fan nit ñi di ko seeti ngir jeexitalu njàngin boobee nga xam ne nii defoon na ko radiyallahu anhu bokk na ci loo xam ne nii kii di Abdullah ibnu Zubayru dana ko nettali ba tey ca la nga xam ne nii mooy tantam ja sunu yaay Aïcha radiyallahu anha nee na dama xëy si suba am lu ma ko soxlaal maa ngi ko fekk ci jàkka bi muy beru ci néegam di jàng aaya yi borom bi subhanahu wa taala ca may aaya bi suñu borom bi di wax fa waqaana azaba samuum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwa albarru rahim maa ngi koy dégg muy répété aaya bi ca mooy waa àjjana bi ñu toogee di fàttaliku ne ay waay yàlla day musal nañu ci mbugalum sawara ndax ñun ba ñuy dund ci àdduna moom rek lañ doon woo ca suñu borom mooy ka nga xam ne mooy ki laay biir ki am yërmande di ko répété di jooy nee na ma taxaw taxaw taxaw mu ak waay naa dem daa di fay jóge dem marché lijjanti la may lijjanti ñëwaat fekk ko paasewul aaya boobee mi ngi koy répété rek mi naan inna kunna nad'uuhu min qablu innahu huwa albarru rahim ñun de yàlla rek lañ doon woo bañ nekkee ci àdduna moom mooy ka nga xam ne mooy ki laa biir mooy ka nga xam ne mooy boroom yërmande ci mbokk lii moo lay won sahabatul kiram góor ak jigéen naka lañ meloon ak téere borom boobu nga xam ne mooy buum gi gën a màgg yonente bi alei salam tudde ko loon habdullahil matin mooy buumug yàlla gi dëgër gi jokkale jàmm bi ak boroomam naka la ci sahabatul kiram mooy woon góor ak jigéen ak naka lañ ko fonke woon radiyallahu anhum mbokk alxuraan ji nga xam ne nii moom la ñu yor ñu ñëpp war nañu bàyyi xel ne yàlla nga ko wàcce ci nit ñi waaye yàlla nga ko wàcce it ci jinne yi looloo tax suñu borom mi ngi ñuy nettali ci téeram bu tedd bi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqaalu inna sami'na qur'anan ajaba neel man day dañoo wax yu jëme ci man ne doon na ma déglu benn mbooloo ci jinni waaye bañ ca jógee dañ ne ëy ñun day dégg nañ alxuraan ju yéeme lool mi ngi noonu yahdi ila rushd boo xam ne day jëmee ca la nga xamee ne nii mooy ak njub fa amanna bi ñun day gëm nañ ko wala nushrika bi rabbina ahada bis ne ki tey dootuñu bokkaaleeg suñu borom dara mbokk loolu muy jinne yi nga xamee ne nii yàlla mayoon na leen ñu dégg làmmiñu arab ca loolu it muy wareef képp ci ñun alxuraan joojee mbokk nga xam ne bala laa jëriñ fokk ñu firil la ko ca lay ngay doog a mën a xam lam digle lam tere ca ngay doog a yegg boo koy jàng mu am jeexital ci yow loolee di mbir moo xam ne ku nekk ci ñun da cee war a bàyyi xel kémtalal kattanam mbokk lu mel nii ñuy nettali dana la jaaxal waaw yéeféer yi nekkoon ak yonent bi alayhi salaam lu tax gëmuñu alquran mbokk la tax gëmuñu alquran mooy yàlla tudd seenug alkaange waaye nañu xool keroog bi nga xamee ne walid ibnu mughira kànge mi quraysh yi mooy notable woo nañ ko na ko walid yow xam nga bokk nga ci ñi mag ci ñun bokk nga ci ñi ëpp alal ci ñun bokk nga ci ñi gën a xam ay woy ak waxi jinne ci ñun dañoo bëgg nga dem toog ak ñoom wax toogal ñu ak muhammad ba xam li muy wax moom yow noo ko gisee mu ne baax na daa di dem jóg dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ba mu demee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaam na ko waaw ndax man nga ma déglu mu ne ko waaw mu ubbil ko suratu fusilat di ko jàngal di ko jàngal ba fi muy waxee ne anzartukum saaiqatul misl saaiqatu aadin wa samud wax ko kawtée fi borom bi ni yàlla bind asamaan yi num yàlla bind suuf ni yàlla teqale ay mbir ba nag indil ko nag ne ko su ngeen gëmul day yàlla fii la jaar ak waa aad ak waa samut mu daal di jël loxoom teg ci gémmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñu ngi lay ñaan nga xool mbokk gi ñu ànd gi ñu bokk ak yow ndax li ñu ko doon weddi weddi xam nañ ne lu mu wax day am ñu ngi lay ñaan mbokk gi daal di jóg bi mu jógee ñëw yéefér yu ba ni ñoom abu jahal ak ñoom umayya ak ña ko yónni woon ne ah walid mii de kanam gi mu demee bokkul ak kanam gi mu ñëwee bi mu ñëwee mu ne leen ay yéen waa Quraysh yéen a xam day man may kan maa ngi leen di dégg maa ngi leen di seede ne gis nga muhammad mii ma doon déglu sànq day wallahi inna li qawl inna li qawlihi inna la qawlahu la xalaawa wa inna alayhi la talaawa wa inna alaaha la musmir wa inna asfalahu la muxdiq wa innahu la yula la wa innahu la yalu wala yula alayhi ay yéen maa ngi leen di xamal ne lii ma doon déglu day wax la joo xamee ni nii musuma dégg wax ju neex moom maa ngi leen di seedeel ne day lii ma doon déglu musuma déglu wax ju rafete noonu booy xool nii ci kaw ma nga meññi lool ci ay kawteef yuñ ci mën a gise boo ko settantale ci suuf ma nga nëtëx lool mel ne dex goo xam ne gu neex la wax ji ma leen ma dégg day maa ngi leen di seede nee ne wax la joo xam ne ju yi féete kaw mboole mi wax benn wax mënu koo féete kaw li ma leen di sant mooy kii bàyyi leen ko ak nit ñi su dee ne gañe ne nit ñi ngóoram mooy suñu ngóor su ko nit ñi rayee yéen ngeen noppalu waaye bu leen jéem a xeex ak moom bi mu amee ak kéeféer dugg leen ñu ne ko ah yow da ngaa dem rek bani Hashim teral la nga daal di wax lii nga wax gis ngeen ca la moom it ak ceddu dikkaat ci moom ba mu daal di soppeeku comme naka yàlla di nettalee ca suratu nuun ala kulli xaal liñ ciy bëgg a wax rek mooy arab yi ak niñ dégg woon niñ dégg woon arab xam nañ ne alquran lu mel ne moom musuñu ko dégg musuñu ko xam moo tax suñu borom yàlla tëkku leen ci ne nañ indi rek wax ju mel ne waxu alquran suñ ko mënee yàlla tënku leen ci ni qul in ijtamaat al insu wal jinn ala an yatu bi misli hadha al quran la yatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahira bu nit ak jinn yépp daje woon bëgg a indi lu mel ne alquran duñ ko mën a indi même bu doon te ne ni dañoo nekk ji dimbalante seen biir looloo tax mbokk mu nekk lu metti xol lool tey da ngay dem ci place marché yu bari gis ku nekk mi ngi ubbi sa téere ndax alxuraan la ñuy tijji déedéet téere yi kañu yaakaar am ci téere yoo xam ne seytaane taaralal na leen ne leen waaw la nekkoon ci alxuraan yépp sëñ bi tënk na ko ci téere yi téere sangam loolee nekk mbir boo xam ne nii lu yéeme la ba wallahi sama benn mbokk ba ñuy wax Muhammad Si bi nettali na ma ne fekk na ñaari nit ñu toog kenn kaa ngi yor alquran kenn kaa ngi yor téere ci téere yooyee mu ñëw ci ki yor alquran ne ko ah yaa ngi ci téere bu mag bi mu ne ko déedéet téere bu mag baa nga ne ca mooy leneen lañ bind lañ bind ca dool alquran mu jóge ci keneen mu ne ko téere bu mag baa nga ne mbokk inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye loolu naka lay bañ a amee ci dëkk boo xam ne nii dañuy dégg kilifa yu mag yu nit ñépp waroon a yaakaar ñu teete leen gindi leen ila siratul mustaqim kilifa yooyu ñooy taxaw naan su yàlla diglee diw digle man ndigali diw lay def bàyyi ndigali yàlla loolu mu ñu jural lim ñu jural lépp waaye mbokk julit alquran nga gëm ne lu mel ne moom am na rek kiiféer la ammaa nag gëm ne am na lu ko gën musiba la am na it ñoo xam ne fa leen seytaane jaare mooy salaatu ala nabi salaatu ala nabi de lu baax la waaye nag ñu créé salaatu ala nabi boo xam ni nee nañu wax ko moo gën alquran ndax fa la yem déedéet wax ko benn yoon moo gën juróom benn junni kaamil yoo xam ne danga koo toog tari ko wax benn salaatu boobu moo ko gën inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk lii sahabatul kiram buñ ko déggoon yaakaar naa daan teqali ko ak seen sago lii lépp nag mbokk yow julit bu mu la yóbbaale téereb yàlla bi lu mel ne moom amul lu ko jege amul téereb yàlla booba taqool ak moom moo gën ca la ngay wittale sa lammiñ mooy gën ca la ngay naatale sa xol moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan waj'al al-qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina ay ay yàlla yàlla na nga def téereb yàlla bi muy naatal suñu dënn yi di leeral suñu xol yi di dàq suñu tiis yi di fekk suñu njàqare yi lii mbokk nga la way bàyyil xel loolu bu baax yow mi nga xam ne yàlla deseel na la xel moo xam ne des na ca mën a xalaate kon nga la way mbokk jurit yi téere borom baa ngi noonu yàlla wàcc wu ko woon pour bala ñoo tudd suñu doom ci ngénte wàcce ko pour bu suñu bàyyi dee ñu wàcce ko yàlla wàcce wu ko woon ngir ñu koy meubler bibliothèque yi ak di ko taf ca kaw la nga xam ne mooy ko miir ya mbokk alxuraan yi ngi noonu yàlla wàcce wu ko woon pour rek ñu koy bànneexal ca la nga xam ne mooy déglu ga waaye alxuraan dafa wàcc ngiree ñu jëm koo jàng jëm koo wattu lañ ca wattu ñu koy settantal lam digle ñu def lam tere ñu bàyyi lii dong mbokk mooy la nga xame ni nii moom moo ñu mën a jëriñ ci téere bi yàlla bi mu nar a nekk lay ëllëg yowmal qiyaama ba tàbbal ñu aljanna bu dul looloo dana nekk lay suñu kaw ba yóbbuñu foo xam ne neexuñu fa ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu moom moom mi nga xam ne mooy dogal ci ñun lu ko neex yal na ñu wërsëgal ñu tegginoo ak téerim bi daganal lam daganal araamal lam araamal taxaw ci ay ndigalam bàyyi la nga xam ne mooy ay tereem yal nañu alxuraan gënal leneen lu dul alxuraan yal nañu alxuraan teete ci biir kaw kaw suuf yal nañu teete yowmal qiyaama ba tabbal ñu aljanna yal nañu teete ba yëkkati suñuy daraja ba yeggi lañu firdawsil aala innahu ala kulli shayin qadir wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh